nag seen i émissaire ñu wër le tour des plateaux télé Ismaïla Madior Fall quelqu'un comme lui bi nga xamante ne tey jii dañoo fay jàngam ba mu egg fu mu egg sénégal yëpp nang ko dans ces deux dernières années ñi mu jàngaloon dañ koy xool di am mépris en regardant ce monsieur bi nga xamante ne tey jii mi ngi doon jàngal nit ñi droit Sénégalais yëpp yéemu ci moom ci am xam-xamam kenn du ko naatable mais su dee nag dañu dellu en 2023 ay sénégalais yu jàng fii dans les plus grandes universités universités génn am ay raaye ba pare ay ay ndaw di xool ci ñoom ñu nekk repère suñ demee tey ji ñu wërale tous des plateaux télé di jalgati yoon bay tit à que sax di dire ne Macky Sall a le droit de faire un second mandat c'est le monde à l'envers léegi nag ñooñu noonu tey nan la ñuy xoolaatee askanu Sénégal kan mooy nangooti tey sa doom dem université jàkkaarloog Ismaïla Madior Madior Fall muy muy muy wax droit loolu nag moom moo moom moo ñu yéem encore ñi nga xamante ni tey jii ñoom ñoo waroon nekk ay repères moom la Norbert Zongo di wax mu ne le pire des hommes ce n'est pas la méchanceté des gens mauvais mais c'est le silence des hommes bien munoo am xam-xam dëgg jël dëgg muur ko jël fen takk ci kaw dëgg te nag loolu nag moo dal askanu Sénégal ba képp kuy boroom xam-xam tey jii nga am xam-xam nit ñi di topp. nga war a servir de de repère mais yow yaay gën a médiocre ñi nga xamante sax amu amuñu xam-xam wala jàngu-jàngu bu kaay bi. Ah, mu mel ni tey boo waxee jalgati yoon tey mën nañu wax ni si ñaari côté la ndax gis nañu euh, ki nga xam ne mooy Birame Souleye mhm. moom tamit euh, vraiment def na benn erreur mhm. ndax démb ci euh, bi ñu bi ñu bi ñu bi ñu bi ñu defee seen sortie di jàkkaarloo askan wi mhm. yëkkati na fa ay kàddu yu xaw a doy waar jëmale ko ci président de la république di wax ni ñi nga xam ne ñooy candidats yi nga xam ne ñoo bëgg présenté wu nekk biir Benno Bokk Yaakaar bu ñu lekk benn yoon kër euh, président Macky Sall sinon dina ko def à la Ouattara dana leen empoisonné et tout alors loolu bi mu ko waxee euh, ñu gis ne après ça aussitôt daal di nay def benn déclaration daal di demander pardon mais après gis nañu ne aussi euh, ak convocation à la sûreté urbaine topp topp na tamit ci loolu tey naka nga jàngatee tamit mbir moom bon dañuy xool la personne de Birame Souleye mooy kan rek. Birame Souleye ñun dañu jàpp ne moom patriotisme la doon woote avant les élections euh, base u Pastef moo doon cumul des postes yi dafa bokkoon ci lu ñu doon xaax lu ñu doon xeex ñun kon mm. nous avons une population jeune mm. jeunes yi jàng comme ñoom ëpp ñu kenn diplôme ëpp ñu kenn xam-xam mm-hmm. fi ñu jàngee la gars yi jàngee xam-xam yi ñu yor moom la gars am diplôme yi ñu am moom la gars am mm-hmm. sinon sax gars yi am ëpp leen ay diplôme mm. mu def cumul de cumul de cumul de fonction ñu koy wax mu ne la loolu ça n'engage pas Ousmane Sonko ça ne l'engage pas kon kooku noonu moom moo njëkk di tegg yoon au niveau de Pastef moom comme il est il est qui pour parler au nom des patriotes parce que patriotisme du affaire u caaxaan de c'est savoir où placer l'axe moral d'un choix su nekkee ne yow moralement tu n'es pas un référence kon kooku amoon droit di wax au nom de structure boo xamante ne dañu dañu réputé wu ne ay c'est des c'est moo tax ñu def ces dérives doomu aadama yi dañu war a yaru soo yarawul nag yoon dafay tegu sa kaw ñun lu ñu cautionné mukk koo xamante day prôné violence ak wax ju bon loolu ça n'a jamais été sénégalais ak ku ko mun di doon nag que ce soit muy Ousmane Sonko que ce soit muy Macky Sall comme mun di doon fii Sénégal soo waxee lu dul dëgg wala lu joon dañ lay remettre à ta place mm-hmm. c'est parce que nag tey ji mm-hmm. langue politique bi dañu manqué hauteur dañu manqué communication mm-hmm. dañu am problème leadership dañu am problème mu communiquer avec la nation sénégalaise pour pour léegi askanu Sénégal que ce soit nga nekk activiste wala homme public tant que vulgaire pour yow tu n'es pas reconnu en fait il faut nga vulgaire il faut nga wax wax ju bon pour ñu mën la dégg mais au nom quoi hmm. ba pare suba da ñëw nga jégalu waat encore une fois mënuñu see nekk nag chaque instant soo waxee lu la neex suba nga dem taxaw tawaat yeneen plateau télé nga taxaw di jégalu Euh, quand même il faut reconnaître que ñu ngi doo ko gis euh, biir Pastef euh, erreur bu mel ni wala boog yeewe askan wi erreur bu mel ni am fa nit ki génn vraiment jéggalu ñu ngi koy doog a gis biir biir Pastef yaakaar naa waaw mais mhm. ku dul may dara doo ko may dara mhm. Ousmane Sonko l'a clairement dit mhm. dans la coalition yeewu askan bi nee na lépp luy ñaawteef ci ñoom lañu lay féetee encore une fois il reconnaît parce que c'est un leader politique c'est un vrai leader boo xam ne da koy incarner su dul dëgg ku nekkul ci dëgg da lay remettre à place. Mm-hmm. ne la nekkoo ci dëgg soo nekkee ci dëgg mu teg la ne la ci dëgg nga nekk mais mënuñu nekk nag comprendre. Mm-hmm. tey jii Sénégal exemple de démocratie la doon. Mm-hmm. kon képp kuy wax au de de ce peuple wala au de de d'une telle quelconque structure. da nga ko war a teg ci xam-xam da ko war a teg ci dëgg ga ay débat bi dafa parce que wax ju bon lu ñu prôné même au niveau de l'Assemblée nationale c'est comme ça mm-hmm. kooku dafa dafa am dafa représenter askan bi au niveau de l'Assemblée nationale kooku mm-hmm. exemple la war a doon lépp luy génne sa lamañ na nga ko war a xam mm-hmm. wax ju bon dafa baaxul ci askanu Sénégal man li may prôné mooy que ne képp koo xamante ne jël nga kàddu gu ñaaw teg ko doomu aadama yi il faut que ñu tegaat la ci axe il faut que dëgg bi mu tegu ci dëgg gis nga nag jàmm ko bëggee il faut que nit ñi kenn ku nekk ñu teg la en face de tes responsabilités. que la loi s'applique pour tout un képp ku nekk nga xam ne la loi est la même pour tout. Mm. amuñu nag ay kii doomu diw la wala kii doomu ndam la képp ku defal lu dul yoon dañ la war a teg ci yoon. dëgg la alors yaakaar naa na waaye lu mu ci mën a doon rek ki nga xam ne aussi mooy Birame Souleye mën nañu wax ni bi mu defee erreur reconnaître na li nga xamante ne mooy erreur am. Mm. di nay def vidéo daal di jéggalu ki nga xamante ne moo di président de la république di wax ni euh, nit bu tooñee euh, bokk ci famille bu baax ñu yar la yaru diine euh, boo tooñee tamit da ngay am euh, vraiment grandeur mën a génn mën a jéggalu ki nga xamante ne moom nga tooñ te loolu rek la daal di def mi ngi noonu kon ñu daal di jàll ci beneen point ba tey ci discours ki nga xamante ne moo di euh, président de la république euh, lan lan nga jàngat ci biir discours bi ndax gis nañu ne ñu bëri dañoo ne gis nañu ne ci biir discours bi dafa xaw a am ay menaces surtout ñi nga xamante ne ñooy waa Pastef bu ñu génnee démb yeewi askan wi wax nañu ne ci biir discours am dafa daal di menacé côté justice te bu menacé si côté côté justice ak dossier yi nga xamante ni ñoo fi nekk ñu war a traité comme il faut ñoom wax jooju nga xamante ne président daf ko wax dañu jàpp ne daf ko wax jëmale ko ci ki nga xamante ne mooy Ousmane Sonko mi nga xam ne jamono ji ku ne xam ne dafa am ay mm-hmm. dossiers yoo xam ne daf ko war a lijjanti ak justice. waaw mm-hmm. bon ku xam le président Macky xam ne de renoncer sa candidature mu yomb ci kenn ci opposition bi. Mm-hmm. waaw que ce soit nga ne passif que ce soit nga ne PDS. Mhm. dans une quelconque structure mhm. waaw ñi mu viser c'est pas Pastef mais c'est le peuple sénégalais mhm. dans son ensemble le viser que la loi s'applique dans sa plus grande rigueur su ko waxee ça veut dire que il n'épargne personne te on devait s'y attendre on devait s'y attendre que ne Macky a toujours été comme ça a toujours été violent dans ses propos mosul joxe kàddu d'apaisement ba mu nekkee au pouvoir jusqu'à nos jours lépp lu mu wax rek dina ci rax përëm loolu du lu ñu bett ci le président Macky Sall koo xamante ni même ses projet de campagne yëkkati naa leen ba ci kaw dóor leen ci suuf lay wax si Maître Wade nañ ko déloger les bu pareil mais kon kooku du la may dara en fait léegi nag li des mooy que ne ñun mi ñuy bàyyil ban comportement la ñu war a am envers cette cette cette personne. moo mm-hmm. ko ne ñun dañu war a xalaat suñu taxawaay man moom musuma xalaat ne Macky Sall dina dina clément ci ci l'opposition parce que ça n'a jamais été la cas. Mm-hmm. Sénégalais yi man deuxième mandat wu ñun on se sentait que ne ñun ci jungle lañ nekk. Mm-hmm. dictateur dictature bu bu énorme lañ dem si biir kenn du kenn amul droit wax lu wax. gis nga dëkk bi ni mu demee. Mm-hmm. soo farek état lu a neex nga wax soo farul ak état ñu tànc la. Mm-hmm. pour nga def publication da ngay tiit pour nga wax ci télé yi da ngay tiit. c'est vrai ñan da ngay gis ne même les plateaux ont euh, été devenus désertes kenn ñemeetu sax dem ci plateau yi di wax. Mm-hmm. sooy wax de sooy def vidéo en live soo nekkee Sénégal fii nii tu n'es pas libre. ñi libre mooy ñi nga xamante ne ànd nañu ak état du Sénégal. mais c'est pas à lui d'imposer parce que jeexal que justice appliquée wu dans sa plus grande rigueur quoi en fait il est toujours le président de la république quand jeexal même mais mais est-ce que est-ce que mhm. dañu toll ci xaar président mu wax ne suñu justice dafa war a am rigueur quoi mais loolu xeeb sax suñu justice la justice dafa indépendant dossier bi ñu war a traité ñu traité ko ñu traité ko normalement quoi mais pas ñu subir ay pression parce que ñu ñuy juger c'est des sénégalais c'est pas des burundais. Mm. sénégalais ñi ñuy tëj c'est des sénégalais ñi ñuy bundu xatal c'est des sénégalais. les hommes mais les institutions demeurent Macky lu mu wax wax wax nañ appliquer la loi dans sa plus grande rigueur day jóge fii dans sept mois. ñun ñoo fiy desaat ak ñooñu te xamuñu kan moo jiite. te ñooñu jiite aussi su nekkee ne dañoo jalgat tey aussi tey dinañ amaat beneen président boo xamante ne dinañ jël jalgatoo encore yoon seen kaw. nañu xam ne ñoom foofu ñu toog du ñoom ñoo fa teg seen bopp askanu Sénégal Macky Sall judduwul ci or judduwul ci jamaa mhm. dàqul jàng kenn Sénégal ëpp fi kenn diplôme gënu fi ndey kenn gënu fi bàyyi kenn mhm. mais yàlla mooy tànn njiit mhm. ñun ñëpp ñu bàyyi lépp tànn ko ne yaay ñu war a jiite moom moo ñu waroon delloo njukkal parce que on l'a donné deux mandats waaye Macky Sall defalul dara Sénégalais yi avant muy nekk président de République loo xamante ne mérité nañu jox ko mu nekk président non nguur yàlla moo koy joxe ñu accepté ko jox ko benn doyul ñu dolliwaat ko beneen moo war a am ngor ne jox ngeen ma benn ñaar delloon naa leen ko ci ay su demee propre nit ki nag sooy def lu baax continuer ko en fait jàpp nañ ne même su nekkee ne sax loi moo ko tënk ba briguewul un second un, un, mandat mais aussi na bàyyi wooy bu mu rafet mais c'est pas à lui d'imposer on a une justice libre et indépendante mm. jàpp naa ne c'est pas à Macky Sall de le mettre la pression pour que ñuy appliquer loi sur une quelconque sénégalais. Mm-hmm. c'est la justice nañ ko bàyyi mu def liggéeyam su defee seen liggéey